yeneen i at yi aussi ñëwoon nañ fi ñu ngi ñaan borom bu tedd bi ci daraja rasulullahi ak barke Cheikh Bamba ñu fee ñëw ay ati at di la fekk sëñ Xaadim ñëw naa ànd ak délégation bu takku yaay ki nga xam ni yow la yàlla dimbali may la xam-xam def sa xol bi nga am yërmande jëmale ko ci ndaw yi di ndaw yu jigéen ñi di ndaw ñu góor ñi foo leen gis ñu tumuraanke ñu dem ba waajur wàcc mbokk wacc kenn bëggatul bokk ak ñoom nga jël leen xëcc leen ci ñoom def baatu laa ilaha laa seen xol ak seen dënn def ñu gëm Serigne Touba ba ku leen gis mbokk yi ñëw di leen xëccoo dañ leen waccoon ñi si ëpp waaye tey ñëpp seen mbokk ni bokk ak ñoom si tànt bi nii ñépp bëgg mbokk ak ñoom yamuloo foofu nga leen di jàngal ndax nit ki kat ku bëgg njariñam danga koy jàngal duñu fàtte mukk ni sëriñ tubaa dëggal na waxu rasulullah yi la mu doon wax ni xam-xam bu sell jar na nga dem ba Chine di ko wuti ñoom ñëpp nga leen di jàngal xam-xam ku fi ñëw gis ni jëluloo rek gëm def si ñoom waaye da nga def si ñoom gëm bu dëggu gëm nag bala moo dëggu day ànd ak xam-xam xam fa nga jëm soo ko xamee xam li ngay bëgg mooy lan ndaa wéeru fu dëgër ku wax rek sa waa kër yi nga xam ni kii ku nu jàngal la du jaayir loolu nag wax dëgg yàlla neex na président de la république. mi ngi tàmbali nag moom Serigne Touba nag di la jàngal kan mooy yonent bi di la jàngal nag wuute gi nga xam ne dafa am ci Seydina Muhammad ak yeneen yeneen yonent yi nee na ko yow sama boroom li ma la ñaan lépp nag na nga ma ko may ci daraje yi ki nga xam ne nee na saa boo jë jëlee sang si saa boo jëlee sang si di leen tegtale nag ñu mel ni nee na ay ay ñu mel ni ay ay weer. nee na booba yi dafa fekk ne ñoom ñëpp booba daa fekk ne booba nee na jant bi ci boppam it dafa fenkut ndax bu jant fëllee rek kenn waxatul weer ci leeraay nee na rasulillahi mboolem ras yorenti yi fi jaar yëpp nee na mooy seen sang te bu fëllee si asamaan si rek seeni leer fayda ba tey muy jàngale Seydina Muhammad ci ay meloom ak ni mu gënee nee na wala boog moom yonent bi nee na mi ngi mel ni gaa yu baax yëpp nag ci li bët mën a gis nee na dafa mel ni géej ni mu wëree mboolem ci àddina bi na mu leen ba pare boole ko ëpp leen ndox nee na rasulillahi noonu la leen ay daraja ci yàlla jeunesse bi nga du jeunesse Cheikh jeunesse ne jeunesse bu classe la di digne la di jeunesse comme toujours responsable delloo njukkal di mën di servir ci réewam mën a servir ci tarixaam service ko def service am ci sëriñam ak ci kër sëriñam jeunesse boobu mooy doon ban jeunesse mooy war a nekk jeunesse bu set bu responsable comme ça su nekk ni mu leen koy dénkee ak di ko wax mu doon ñoo xam ne ne dañuy doon ñu jàng ñuy gëstu ndax bu leen néewal mukk mukk mukk mukk seen jom boo leen amul dara dara dara dara na jàpp ne am ngeen li gën a rëy ci doomu aadama mooy ngëm fois doomu adama li fekk yaa ngi am ngëm rek bul ñàkk yaakaar ci dara ndax lenn loo gis ci sa moroom rek sunu borom mën naa laa dencal lu ëpp loola ci sa bopp kenn ku nekkit rek ci jeunesse boobu war nga nekk nit koo xam ne kuy góor góor lu ngay doon kuy taxaw ay taxawaay yu war ngay doon ci sa wàlli l'islam santé le président Abdoulaye Wade à cette grande rencontre, cette grande rencontre de la jeunesse qui a décidé par cette nuit de magnifier la gloire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Et de quelle manière En chantant ses louanges, en se tournant vers le Coran, en permettant à tout un chacun de pouvoir découvrir les multiples facettes de la vie merveilleuse de, du prophète Mohammed Cette œuvre, c'est l'œuvre d'un homme qui est un militant infatigable de la cause humaine. Cet homme, c'est Serigne Khadim Le président reconnaît ses immenses qualités de berger qui conduit un troupeau de jeunes, de jeunes qui étaient certes égarés, qui aujourd'hui ont retrouvé le droit chemin. Nous lui devons gratitude et reconnaissance. J'ai eu, j'ai eu tout à l'heure à lui dire, en lui disant, le président Amblaïwad est très soucieux de la condition des jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons. Aujourd'hui, en vous investissant auprès de ces jeunes, surtout de ces jeunes qui étaient des égarés, des jeunes qu'on retrouvait dans des milieux tout à fait hostile. Ces jeunes-là, vous en avez fait. Des hommes qui demain peuvent porter sur leurs épaules le Sénégal et le conduire vers l'émergence. J'ai eu à lui faire ce témoignage, mais j'en ai profité aussi pour magnifier euh, nos relations. Seigneur Khadim est un ami, mais surtout un guide. Si aujourd'hui je me sens heureux d'être à ses côtés, c'est parce que c'est un homme de valeur et tous l'ont reconnu. Nous ne pouvons que prier pour lui, pour continuer dans ce chemin si utile pour son pays, mais aussi si utile pour l'islam. Qu'Allah nous entende par la grâce du prophète Mohammed et aussi par la grâce de Cheikh